ku be shonu ya le ha mi na de de ke abula wa de bu me ti bi are me to ya go de be shonu da kari la bi le ha mi na de pe me ti kare me to ku bi me na pa do to ti ti tanga bi bi ਪਰ ਮੈਂ ਜਾ ਬਤ ਮਾਮ ਦੇ ਸੋਨ ਚਾਲਾ ਕੰਮ ਨੇ ਦੇ ਸੋਨ ਫੀ ਬਾਪੁਨ ਫੀ ਮਾਮ ਦੇ ਨੂੰ Demere müdeci vay vale parsel. Vah kiri de be mellisime karısı bile ne. Vah bur. Wow. Aa kiri mamula. Ee, Aa ben de vate yale mogini gav. Ne bali ma. Ne <laughs> şan. Aa ben de mile namon. Ne şan. Kesin ve karısı. bari na mu naa la. Ah, maa nga doog muutu fóotu fóotu bee sonn. te nga bugg toog nga toog tuuti demalee waxtaanu foofu. dafa naa waxal rek fu mu ne madam moom a yónni woon bitig ba te damay bañ bu mu génn fii gis ma fii ma toog. nga baale ma buur de nga toog. waaw ah, xanaa ma nekk ci monsieur eh, jigéen. ah sama jigéen nga mel tamit <laughs> waaw de dégg nga. <laughs> léegi moom dégg nga seetaan si jigéen bi lii. waaye déedéet xam nga jigéen yi tey jamono ji rek. ah dégg nga ma wutali liggéey si ceekeri patron foofu. yow buuru defee mel ni si ma waxtaan. waaye bañ maram génn seen ma fii ma toog ak yow. dégg nga may dimbali rek. Marie xam nga jikko ak borom du dañ. déedéet day dañ kaay. waa léegi xam nga lan la waaye moomu dañ na. defal naa ko xam ma léegi nan la ñuy def. madame kër gi moo bàyyi te moomu yónnoon bitig ba léegi nañ dem kër gi rek

دجله واحنا واقفين لكن ما واقفين ها وبعدين ما يقول foo nekk ni nag mari kër gaa ngi nii foo nekk ni koo soxla woo laa ilaa yow kay bul woo téléphone yow kay yow ay nobanti jam doomu patron bi nga fi nekkee Saya sayo, mane kam lawak, wak man kay kam buma lagi gise na door bang bugute kam wak ke o ha ye sai saay sawaɓe gona do tan hebi dumen anda me anda door me anda me anda wor od wor od wor ko ni od wor adu an od wor ɗum xaaral ma no min noon no wayri noddu waa dokka bati xaaral ma woo leen sax kel mbimam de ɓe ano kokoye dérapé mumari nag mawu koko gum indi kon ndeɓa madame day bañ ko laal kokoy boo duggee fii ko laal ko waaw waaw nañu fi <laughs> kër gaa ngi ni moom moom macha allah moom <laughs> ñëw rek salaamaaleykum <laughs> waaw sa aleykum salaam fii eh, kan la nuyu ko ndigal la tudd ndigal waaw ndigal la tudd yow xanaa sa nopp yi baaxul yow ci biir kii ci biti du dugg ah. ci ma doon rabaali ma. damay damay wutu kootu. mooy tiré yow doo dugg ci kër gi et puis yow dama wuyu patron bi. waaw defal naa ko rek yow dem ndigal. ah ma def yoroo foofu weccet nga may moom de <laughs> xam nga rek day jëfandikoo cigarette bu fekkee rek weccet ak moom. ci ma doon dégg nga toog dégg nga yow lan liggéey sama toog. ay na war tiitu. eh eh allo. Alo, alo. Omar? Yaay. Waaw ko min tembaane malla tembo malla tembo waaw waay bon sourbiyen ala bon sourbiyen woni woni woni jam tan bon sourbiyen woni sawa ni rek eyyi sawa ana nagi ana peeyi mba ñappenci jam ana san pap an ñoom ay sar ñoom jeen ak ñoom ñëpp ñu ngi foofu ñoom ay juma ñoom ñëpp salimat ab laayeen foofu ah alhamdulilah eh, wuyum léegi noon ƴeew joni comme patron tokos kanan min patron woni patron kono min comme patron tokos min woni patron mon quoi may sen patron léegi léegi sama nag yo jënal ma ko ngam ngamayal ma ko sam pap léegi pay nga jël ko nga mayal ma ko sama ay sat bi bu ñëwee nga ne ko après ma ma buggeel ko ci def après ma takku eey eh, gisoo dàll gisoo ko man xoolal ci suuf rek nga xool dàll bi gisoo weer yi weer yi weer yi yow gisoo weer bi gànnaar weer bi bi ba taakaw nii ci wetu weer wu taakaw weer gisoo. Demba yow lay waxal. allahu akbar. Demba sama téléphone yaay booy wul yaay booy yaay booy. tais-toi là dama ne dama ne da ngay ah, sama téléphone war ma ko jël si woo keneen. ma sama nga a a génn si bitti dem raxasal ma oto bi ndax dama am rendez-vous léegi léegi.